bokki jullit yi bokki taalibe yi ginnaaw bu nu santee borom bi subhaanahu wa taala julli ca ndawam la mustafa sallallahu alayhi wa sallam noo ngi dellu di yeesal sunu jaayante ci Mawlana Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu wa di sant yàlla lool ci teraanga ju mag ji ñu ñu boole ñii fi daje mooy ñi lënkee sëti sëriñ Bousso bi ak maam saa Bousso di amal ab table ronde tey fii ci ëttub sëriñ Omar Bousso xalifaam di sëriñ Amdi Moustapha Bousso yàlla na fi yàgg lool te wér di nit ku am maanaa di ku baax waajuram bu baax wa sëriñ Omar sëñ Fallou Mbàkke mas naa laaj benn laaj mag ñoom àndaloon neleen ndax nijaay ju mel nii am ngeen ko mag ña ne cel mu ne wax leen ma ndax am ngeen nijaay ju mel nii mag ñëpp ne cel mu ne yombul kat waaye man yàlla jagleel na ma ko yombul kat waaye man jagleel na ma sëriñ Fallou daa laaj mag ñim àndaloon ndax nijaay ju mel nii am ngeen mag maa ngi ne cel mu ne amu leen ko wax leen rek amu leen ko de yombul nag waaye man yàlla jagleel na ma ko muy ku ñuy tiitaroo ci yar ak njabootam ci mbañum rus jàngal leen ak nangoo liggéey ak xam seen bopp loolu ci kanam tuuti sax dinaa ci dikkaat ci lu gàtt rek nu ngi nuyu sëñ Ibra bu baax di ko jox wàccuwaayam sëñ naa sëñ Basiiru ñoom ñëpp suñu waajur sëriñ Fàllum sëñ Mutalib sëñ Abdul Mutalib sëñ Alhaaji Ñanga Buso suñu bàyyi sëñ Omar Buso mag ñi fi toog ñëpp di samay waajur maa leen di nuyu ñoom ñëpp waxtaan wi ñu doon waxtaanee muy al mas'uliya dama ko bëgg a tënk rek tënk bu gàtt mooy la responsabilité responsabilité bi nga xam ne waajur am na ko ci doomam jëmi sàmm responsabilité bi nga xam ne njaatige am na ko ci surgaam responsabilité bi nga xam ne sëriñ bi am na ko ci taalibeem waaye responsabilité bi nga xam ne ndey am na ko ci doomam ji mu jur loolu laa bëgg a tënk tënk bu gàtt rek sëñ aboo danga nga koo wax léegi nga ne kullu mawludin yuladu ala fitrati fa abawaahu yu hawidaani aw yu nasraani aw yu majjisaani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku judd ko ne yaa ngi juddu ci mbaax muy doomu jullit muy doomu yéefar da nga judd set wecc dara taqu la waaye nag sa ñaari waajur ñoo lay def loo doon ñoo lay def yahoot ñoo lay def majjoos ñoo lay def nasaraan jamono jii ñu toll nag ruur mi bari na ba gaa ñaa ngi dugg ci biir kër gaa yu baax yi di leen soppi majjoos ak i nasaraan ak i yahud loolu war nañ ko waxtaane de gaa ñi ma ñu ngi dugg ci biir kër gaa yu baax yi di sàcc doomi gaa yu baax yi di leen def ay yahud ak i nasaraan ak i majjoos dinaa ko leeral leeral bu gàtt inna sama wal basar wal fuhaada kullun awlaayka kaana an umasoola ginnaaw muy muy muy muy dégg akub gis ak sa conscience muy xol yépp yàlla daf koo gàll ay responsabilité te léegi nit ñi li ñuy mooy yàlla mooy lu ñuy dégg lu ñuy gis ak lu ñuy wax ak lu ñuy yëg ci seeni xol ndax dafa am lu ñuy tuddee yëgug juróom yi li ngay mos mu sedd li ngay mos tàng li ngay mos mu weex li ngay mos mu mu sedd li lay xeeñ mu neex li lay xeeñ mu naqari yooyu yëpp boo ko toppee dafa communiquer direct ci xol kon nit balaa mën a defar day defar xol ba noppi xol yi nag ñoo tàmbalee yàqu jamono ji xol yi moo tàmbale yàq mbokk yi kullukum raain wa kullukum masul an raiyati kenn ku nekk sàmm nga te danañ la laaj ëllëg loo doon sàmm sëñ aboo wax nga aaya bi léegi waqifuhum innahum masulun dañuy àtte nit ba mu war a dem àjjana ñu ne ko taxawal fii waaye ana ñama la dénkoon mbokk yi lañ xalaat loolu njaboot gii ma gis léegi njaboot gii ma gis léegi buñ ci teelu ta wax léegi yar leen yarbu bu bu difficile ndax maanaam yar bi yar bi ñu war a yar xale yi léegi dafa laaj coono dafa laaj yitte ndax mbokk yi waa kër yàlla ak waa kër seytaane ñooy xeex waa kër yàlla ak waa kër saytaane foofu laay jeexale waa kër yàlla ak waa kër saytaane ñooy xeex xeex bu métti waa kër yàlla nag ñooy am ndam waaye yàlla yi du jekki-jekki rek may leen ndam te defuñu benn effort wa jaala kalimatu lasina kafaru sufla waaye na wa kalimatullahi hiya al-ulya ginnaaw baatub yàlla muy mujj jëm kaw waaye yàlla day leen di seetaan ñu xeex xeex bu métti waa kër seytaane ak waa kër yàlla su ma nee waa kër yàlla mooy kan mooy imam xalifa général des sëñ daara chef religieux oustaz man naa yaatu lool waaye dama koy tënk foofu rek xalifa général oustaz sëñ daara yaa ngi dégg ak ki nga xam ne mooy euh, ki nga xam ne mooy euh, imam ñii buñ tuddee waa kër yàlla rek ñooñu lañ ciy jiital imaam sëñ daara xalifa général sëñ daa imaam euh, ab ustaas ñooñu la ñuy jiital ci waa kër yàlla ñu ngi saaga xalifa général jamono ji ñu toll saaga yu métti dem leen ci internet bi ku jàpp xalifa général boo yaakaar ci senegal gaa yaa ngi koy saaga fi mu toll nii ustaas boo gën a jàpp ni moo gën a mag fi ne am lu mu bëri bari xam-xam ñu ngi koy saaga sëñ daara yi moom dañ leen a jiiñ ay pédophile yi ñëpp ngi ci kaso bi sëñ daara yi jiiñ nañ leen ay pédophile yi ñëpp ngi ci kaso bi xam nga lu ko waral waa kër yàlla dañ dañ ne ñoom seen métier mooy al amru bil mahruf wa nahyu anil munkar mooy digle lu baax tere lu bon waa kër seytaan yi du fi amee ndax waa kër yàlla dañ naan njaaloo baaxut sàcc baaxut naan sàngara baaxut ak lesbienne baaxut ak ngóor jigéen baaxut jël alali jàmbur baaxut sonal lool waa kër seytaane te waa kër seytaane dañoo bëgg njaaloo doon officiel naan sàngara doon officiel ak lesbienne doon officiel ak ngóor jigéen doon officiel sàcc doon officiel fen doon loolu ñoom dañoo bëgg mbooleem luñ ne lu bon la rek ñu mbaa yàlla ko ku ne di ko defee nam ko santire waa kër saytaane loolu lañ bëgg waa kër yàlla nag na duñ leen ci bàyyi ñu ne kon nag ñii war nañoo xeex ak ñoom alxasul fikri maanaam xeex ak ñoom xeexum xel buñ jël ngànnaay de waaye nañ xeex ak ñoom ci média xeex ak ñoom ci lavage de cerveau andil leen lu bees occuper seen temps ak seen jàngati nañ def rek internet bi muy seen sëriñ moom mooy li ci njëkk ñaareel bi mooy mënuñoo fexe ba nit ñi bàyyi leen nit ñi duñ leen baax ndax gëm nañ leen ba noppi waaye nañ fexe ba wàññi seen cofeel ci ñoom daa jara déglu de nañ fexe ba wàññi seen cofeel ci ñoom ñu ne nu ñuy wàññi seen cofeel ci ñoom ñu ne dañuy jekki-jekki rek jël ab imam ne bet nañ ko ci jabari jàmbur tuuma lay doon rek buñ ko jabul yi see wax ko ñëpp dégg ko dana am ñu naan ah ay la yéwén de wax dëgg yàlla wax ji bëri de man de nangam ak am faaw am ñu gëm léegi mu ngi wàññi cofeelu ki gëmoon kooku ñu ngi wàññi cofeelam ndànk-ndànk ñu ne sëñ daara bi ñu ngi wàññee ba nit ñi dootuñ ko yit ay daara ñu ne nañ wax ne gone yu ndaw yiñ koy jox day tëddak ak ñoom pédophilie la léegi yow sa gone gu jigéen boo ko amee daa war a jàngi gone gu góor doo ko amee daa war a jàngi yow wóoluwoo sëñ daara bi ko jàngal nga ne kon far leen toog nañ leen yóbbu ca sardina fa wala ñu jàngal leen tubaab ndax sëñ daara yi moom léegi ay pédophilie lañ waa kër seytaane def noonu dégg nga wax léegi lan mooy pexe mooy fexe ba képp ku amati njaboot ki démb fan yi rek ci koñu armeel yi dafa am benn borom sareetu mbaam gone gu ndaw gu mbëkk sama ginnaaw oto bi bi ma wàccee ne ko lii ngay def nii lu mu doon mu ne ma mbaam mi daf ma ëpp doole mënu ma ko téye maire ci kaw yépp naa ma dimbale ko baal ko rek day gone ma ne ko man kay danaa ko jéggal ci benn sart benn sart lii ma lay wax daal boo ma nee bu ma demee danaa ko wax sama baay ma jéggal la maire yi na waxal mu dégg ma ne ko boo demee neel sa baay Cheikh Ibrahima Fall làmp ma ma dajee léegi te yàqu otoom nee na ma kan moo la jëndal mbaam mi ma ne ko sama baay mu ne ma boo demee neel sa baay bu déwee ne dana am ñaari mbaam ndax mbaam mi dana la transformé boo demee neel sa mbaam mi moom bu déwee nee dana am ñaari mbaam ndax dana am mbaam mi te yow mbaam mi dana def mbaam ngeen doon ñaari mbaam ci këram parce que gone gu toll ci jàng jàngaluñ ko yaruñ ko bàyyi kook bàyyi ma bu amatum xel bu màggee rek lu mbaam mi def mën na ko def kon ndaw dañ koy yar jàngal ko mbañum rus jàngal ko li mu war a wax ak li mu war a def léegi fi mu toll nii jàgg gu metti gii xew ci biir dëkk bi sax danga gis ay doomi soxna yoo xam ne seeni waajur yeeg seen maamadi ak ñëpp ay taalibe lañ woon waaye léegi fi ne li ñuy jaay mooy ñaar ñu daje di nuyoo kenn ko ne dañ gis mu def nii loxoom kii def loxoom kii def loxoom waaye na ko rek duma la si jóotal faaliwu ma la gënuma te loolu lépp ñàkk a defaru rek la ñàkk a defaru rek la inna fil jasadi mudqa isa salahat salahal jasadu kull wa isa fasadat fasadal jasadu kull ala wa hiya al qalb bu xol baaxee lépp baax moo tax sëñ Tuubaa daan wax ne jox leen ma nit ñi ma defar xol yi ndax doomu aadama yàlla da ko composé def ko xaaj ñeenti xaaj mu doogu tudd doomu aadama yàpp yaramam xol bi ruu gi yaa ngi dégg ak xel mi leen lu ni mu am lu mu ko féetale yàpp yaram yi suufa ko moom su baaxee suuf dana ko jël bu bonee suuf dana ko jël loo ko diw diw loo ko sang-sang loo ko negg-neggal suuf moom ci la jëm minha xalaxnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra bu baaxee suuf dana ko jël bu bonee suuf dana ko jël yàpp yaram bi lu ci des mooy xol bi xol bi ne yàlla ne maa ko moom yow ma laa yanfa'u maalun wala banuun illaa man atallaaha bi qalbin salim kon ku la gënu xol moo la gën fa yàlla mu des lan mu des léegi li ñuy tuddee ruugi ruux gi mu ngi aju ci jëf ji ku la gën jëfi tey moo la gën ruuxu ëllëg ku la gën jëfi tey moo la gën ruuxu ëllëg ndax jëf ji bu bu ruux gi dañee ci yàpp yaram wi lu caage ne yaram bi yëpp waaye ruux gi bu fekkee ne dafa texe dañu koy sànni xeliin ci ay joxi picc muy naan ca ndox ma kon ma ngay dund bu texee dee nag waliyansu billaahi ñu sànni ko sijji kon ruux gi mooy yëg kon ku la gën jëfi tey moo la gën ruux ëllëg illahi yasalu kàllimu tayyib wal amalu saalihi ku la gën jëfi tay rek moo la gën ruug ëllëg mu des na xel mi xel mi ne yàlla ne àdduna moo ko moom ku la gën am xel moo la gën nu muy tërale adduna kon jotoon na bu ñu bëggee yar gone yi ci situation bi ñu nekk ak jamono bi ñu toll ñuutal leen bii asali maanaam environnement bi ñu dundee environnement day détruit ku nekk xam ne ne environnement day détruit ndaw ñi li gën a bëgg podium yi làmb yi discothèque bi dorog bi jigéen ñi football bi yépp boo ñëwee ci taax yi cinéma yeeg internet yeeg télévision yi mu ngi fi kon léegi jaadu na ku bëgg a yar ku nekk nga def na sëñ Tuubaa radiyallaahu taala doon def saa bu ko lajoor ne ñëwal dëkk ci capital bi ne ko man dama lay daan ndax damaa yore gone te bëgg leen defar du ma dëkk ci capital paataar mu ne ko kon damay dem dëkki kër Amadou Yàlla ñu ñëw ñu ñëw ñu ñëw ci ma mu ne ko damay dem dëkki Mbàkke Kajoor nga xam ne nangu wuta bañ demee Poroxaan tim ci biir Ñooro daf ko ne damay dem Poroxaan di la daan 7 kilomètres di ñëw parce que ñi may yar mënuñoo riisoo ak seen maanaam euh, mbooloo mi tànni béer yeeg fuural yeeg yëpp yëpp yëpp déedéet mënuñoo ne ci seen biir kon léegi jaalu na tey la sëñ Moussa Ka ne woon sarti sëriñ jaajju ba jooy tëggam ba jàng julli bay joxe ngir yónneel ba nee yi ku ca ne yaa nga aw siraatal mustaqim ku ca néewul yaa ngi ca ñan la a xiim kon ab sëriñ daa war a gor ay daara wut ay donga di leen xamal téere bi di leen tërbiye di leen maraleeg seen borom waaye nag mu ñemee wax kim ñi muy yar xool leen ci man ah booy yar nga ñemee wax ci ngay yar xool leen ci man sëñ Muntaxa génn na fi benn bis ne xool leen ci man ak a jafe te ngeen a xool ci man ñe ko ñemee wax bariwul de di yar sa rak wala sa mag wala sa doom yow sa doom ji ngay yar gis na ne am na koy waxal ci koñ wala léeg-léeg nga sant koy fet bu tukkulóor bii di bind bëccëg bu ñëwee nee ko sama yaay nekku fi dem mu dem nga xam ne yaa ngi jàngal sa doom ay fet sa bàyyi léeg-léeg nga dégg muy woote téléphone téléphone bi na kar mu ne la wuyu ko nee ko dafa ne ci wane wala day julli wala daa yor kurus doom di jël bàyyam a ngi toog de mu ne ba waat ko léegi de dafa jàpp kurus de te jàpput kurus yépp yaa ngi koy jàngal fen ak wax lu dëgg fi ma jeex la daal thème bi dafa yaatu li ñuy tuddee responsabilité dafa yaatu waaye la sëñ Omar Mbacke Jaloo ngal doon nettali rek lay jeexale daa am ku ñëw ci sëriñ bi ne ko man de mbàkki damaa ñàkk nday ñàkk baay ñàkk nijaay sëñ bi ne ko nga bëgg lan mu ne ko ma ñëw fi yow ngay sama nday di sama baay di sama nijaay sëñ bi ne wool fere yëpp bañ daje ndax li ma lay dénk dana la jariñ dana leen jariñ fere yëpp ñëw mu ne ko maa ngi lay dénk ño loo xam ne boo ko jëfee dootoo leen tàggoo te dana mën a wuutu yooyu nga ñàkk boo dellu demal dellu ñëwal dellu te boo demee na nga def jaamu yàlla muy sa nday nga def nangoo liggéey muy sa baay nga def doylu muy sa nijaay tey siyaare si waaye ñàkk ñett yooyu warta tax nga di fi toog wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ginnaaw ñu tàmbalee suñu lépp ci sant borom bi tabaraka wa taala ci mbooleem ay dogalam di julli ci sangu-sang yi sayyidina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam gën gi amati julli di sant ak ñaanal suñu yaakaar tey ak Xaadimu Rasuul radiyallaahu taala anhu suñu borom dolli ko ay leer ak i daraja ak ci daraje góor ci kaw góor yàlla yi di sant suñuy wajur ndax lii lépp ñoom la di li leen ñaanal sax borom defa leen fa nekk barsax suñu borom defa leen jéggal ci daraje Seydina Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam ñaan na itam su ñaan suñu borom def jàmm ci àdduna bi def jàmm ci Sénégal def jàmm ci Touba def jàmm ci kenn ku nekk ci ñu fi toog ak jullit ñëpp barke Seydina ci ndigal suñu kilifa di kilifa kër gi di Sëriñ Amdi xalifa sëriñ Omar buso comme ni ko suñu àlla waaye nag euh, may wax rek xam ne sama kàdd mënut wut kàddoom xanaa dama jéem rek ndax ndigal euh, moo wax ne mi ngi tàmbali am nuyoom ci sëriñam xaritam royukaayam Cheikh Mouhamadou Mountakhal Bachir xalifa la xalifa général di ko sant di ko ñaanal ñaan suñu borom guddal fanam lool ba màggal day liggéeyam ci mu ànd ko moom ànd ko ñun ñëpp mu ne ñu ngi nuyu magam kilifaam sëriñ maam sëriñ Bousso mi nga xamante ne moo fi toogee jotaayu maam sëriñ maam sëriñ buso bi rëdd la doon mu ne mi ngi nuyu itam sëñ Baara Bousso bi nga xamante ne moo fi toog jotaayu maam Saa Bousso ñoom ñëpp mu ngi leen nuyu leen siyaare di leen ñaanal sama borom dafa leen jàmm ci dara ji Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ah, jotaay bi nag mu ngi koy rafet lu baax a baax a baax am ci mbégte lool te mbégte moom mbokk mboolem njabootu sëñ Mor Bousso Bousso yëpp ñi fi teew ak ñi teewul soxna Mama Saa ngi fi ak soxna Soxna May ak ñenn ci njaboot yi waaye ñi fi teewul itam ñi fi teew teewaalal lañ leen kon daal ñoo xam ne njaboot su demoon gépp ñoo teew ànd ak yéen jotaay bii am ci mbégte moo xamante ne lam yi mënu koo tudd sëriñ bi nag mu ne mu ngi leen di sant yéen ñi nga xamante ne yéen a jiite lii ci sëriñ Fall sëriñ Fall nekk ci bopp bi mu suñu alaaji ak mboolem ñi nga xamante ne ñoo ànd ak yow ci liggéey bi sëriñ Abo sa sa sa sa xam-xam rafet na sa wax rafet na wax dëgg yàlla macha allah ci seen bi gis nañ lu koy jot ku ñëw sant te ñaan sama borom defal la jàmm yéen ak sëñ Lamp Fall rafet wax ji rafet na lépp mat na ñëpp sëñ baa ngi sëñ baa ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaan sama borom defal leen jàmm yéen ñi teew fi ñëpp ak njabootam ngeen kon sëñ bi sa njaboot moo tew ci sa kanam ci sàkku sa ñaan ci liggéey bi rëy bi nga xam ne sëmb nañ ko nga def leen ñaan bañ am ca ndam lu kawe njort ndaxte kat soxla nañ fañ toll ndaxte fii jamono toll mooy thème bi ñu wax na léegi rek responsabilité bi nga xamante ne ñun moom la ñu am ci sàmm ndono li nga xamante ne moom la ñu maam yi bàyyeel responsabilité boobu dafa rëy rëy boo xamante ne képp ku la ku ci jàpp rek am na nga ko njëkkal am na nga ko gërëm kon sëriñ bi sa njaboot ñu ngi nii bëgg daal nga ñaanal leen ba lépp lu ñu sum ñu am ñu am ca ndam moom itam mi ngi nii moom sëriñ bi wax dëgg yàlla ku xam-xam ne euh, desul gannaaw ci ci mbokk ndax tey kat defe naa ne kër sëñ man moom euh, liñ man jàmbaar lañ ci kër sëñ Bousso bi xam naa sax moo ci seede waaye defe naa ne te jamono euh, yi suñ mag ji ca mosu ma ma ma ma mosu Omar ak ndeyante ba ni fi jógee soxna Ndeye Bousso taxaw taxawaay boobu wax dëgg yàlla ñoom itam ñu ngi def ay jéego yu am solo ci bés bu ñëwee kon sëñ bi mi ngi ñëpp di leen gërëm waaye nag di benn appel di woo ñi nga xamante ne maanaam ay ay bokkam lañ bokk yëpp sëñ bi nee na mu ngi leen di woo bis bi nga xamante ne bés bu ñëpp la ndax te képp koo xamante ne yaa ngi askanoo ci maam ma xaram rek bés bi sa bés la rawatina nag ñi nga xamante ne mënoo leen <laughs> tudd mënoo leen lim ba tudd maam maam maaram te tuddoo suñu busoo bi wala tuddoo maam saa busoo ñooñu mi ngi waaye itam nag na itam mi ngi bàyyi loo xel ñi nga xamante ne dañoo yaakaar ne ndaje moom dañoo yaakaar magal ko moom toog fa nga toog rek yónnee sa sa sa sa addiya la nee na nañu wees loolu nañ fexe ba ni ñu koy defee ku fi xew lu ko nekk bokk maas la ñëw teew si la ñoom it nañuy fexe ba ñoom itam ñu ñëw di teew si téye toog teew wax ndaxte kat ci yi moom bu kenn ku nekk toog barab rek yónnee sa siyaar du sotti kon sëñ bi nee na daal mi ngi ñaan kilifa yi nañ gën a fonkaat bis bi di teew tey ca ca ca ca bis ba ndax teewaay bi lañu soxla wutuñu xaalis wutuñu leneen kon nañu wut mooy lu dul mbokk lu dul mbokk nag li ko def mooy dox ak wax ak ak moo moo moo ko kon suñu naa daal mi ngi sant bu baax a baax te ñaan ñu yàgg bis ba yàlla jàng jàmm ca lépp rek nekk aw yiw ci daraja Seydina Muhammad yéen tam maa ngi ñaan yéen ñi nekk fi ñëpp itam ngeen sëñ bi ngeen dolli ko ñaan suñu borom gën a guddal fanam ndax aw seen moom rëy na ceeb li mu bëgg ci dundal dundal dundal ma euh, ëttu maamam bi kawe na lii rek firnde la ci kon daal ñëpp nañ moos di ko ñaan maas di ko ñaanal sama borom guddal fanam ni muy def itam bis bisu mag ak jotee muy teew doonte mag la am na yoo xam ne mënu ko waaye du waaye nga waaye du joxe ngant bu ko mënee rek day teewal boppam ànd ak ñun ca bés ba ànd ak ñun ca ca barab ba lu lépp na war yàlla day wane rek pas-pasam ak yéeneem ci lépp luy luy gannaaw maam suñu bu sooyee kon daal ñoo ngi lay sant baax la ñaanal te di gën a nekk sa gannaaw ndax kat xam nañu sa bëgg-bëgg mooy sa euh, bokk yëpp nekk benn yàlla na ci yàlla dafa ndam bi jaay si dina la a wasalaamaaleykum wa rahmatullah kon ci turu al muassasa asxaafiya lil usra al musobiya donte ne seen ndaw lañu ñu ngi leen di nuyu ci turu mu assasi bi yëpp di leen ndokkeel te di leen siyaare di jottali cantuk mbooloom mbokk yëpp tàmbalee ci bàyyi sëriñ bi nga xam ne moo fi sëriñ Bousso bi tey jii ak sëriñ Baara Bousso bi nga xam ne moo fi sëriñ Saabus ak mbooleem seeni rakk ak seet yi doom ak seen i jarbaat ci tur woowu nuyoo di leen ci gërëm bu baax a baax it nag tey xam la ne sunu xol sedd na guy ci taxawaay bi nga xam ne mbokk yi ñu ngi koy taxaw ci mbooloo mi ci lépp lu ñu yittewoo fépp fu ñu woote ñu taxaw nañ ca war a kon loolu duñu leen ci sant bu baax a baax sant gi sax daanaka xaw ko jar ndax seen bopp la ñuy ñoom ñoo woote ñooy wuyu si kon du ab jaaburay woote ay jaabu di wuy fi waaye ñoom ñoo woote euh, ñoo wuy si seenu woote mbokk yi wuy si fekk ci leen ak taalibe yi ak dëkkandoo yi kon ñu ngi sant ñëpp ci wuy si gi ñu wuy si sant ñëpp ci taxawaay bi kon ñu ngi taxaw ci bis bi ak bis yu mel ni moom yëpp di nag ak cant waa kër Serigne Omar Bousso ci seen taxawaay ci bis bii bis bii di jub ci kanam muy taxawaay bu yàgg ñu ko bàyyi Ibrahima waxe léegi tàmbalee ca soxna Ndey Anta ak soxna Mambusa ak mboolem mbokk yi nga xam ne bi jiitu yëpp waaye tàmbalee ci sëñ Seexu ba ci sëñ am di bi nga xam ne bii tey moom suñu amoon tey ji seen taxawaay ci bis bi day rafet lool te mat lool ñëpp dañuy teew dañuy teewal te loolu mooy li am solo ci bis mooy dañuy teew ni ñu war a teewee bu nag teewal la ñu war a teewal loolu dañ koy def bu baax te di ko teel teewal te teewal gi yaatu kon loolu ab soññee la ci ñi nga xam ne bi ñi seen ginnaaw ñëpp nañu xam ne sëriñ waa kër sëriñ Omar Bousso daal jàmbaar lañ ci woote bi lool jàmbaar lañ ci liggéey bi lool taxaw nañ ci lool rawatina ak nag sëriñ Amdi Moustapha bi nga xam ne tey mooy xalifa bi dañuy ànd ak ceewarte lool ànd ci ak mbégte lool sawar ci lool lu mbir ndawee ndawee rek bu ko yëgee da jóge waxam te mënoon naa yónnee rek ndax xam ne ne mag la te wérul waaye loolu lépp day mel ni su suñ mosoo xewlee ñu tudd suñu Omar rek amatu sago moom ci loola taxaw na temm ci lépp luy jàngal bis waawa ak lépp lu koy sagal moom kenn ko ci jiitu te kenn du ko ci kenn du ko ci mujj itam kon sëriñ bi ñu ngi koy ñaan bu baax mu yàgg fi loolu te wér ba àggale ay naalam yi mu naal yëpp ci daraja seen Touba xam ne dana àgg sax waaye mu àgg ci kanam mbooloom yëpp ak kanam mbokk yëpp kanam rakk yëpp kanam taalibe yëpp mën naa yeneen ak yeneen ak yeneen bu yëpp àgg ci daraja sëñ Touba xam ne ne moom yéeneem rafet na xolam yaatu na kon dañ koy ñaanal rek yàlla wa yàggal ko fi di wéeru ko bu baax a baax su yàggee lépp dana ñëw insha allah mbokk yi fi teew maa ngi leen di nuyu te di ziyaara di ci jiital sunu wajur sëñ am Moustapha Bousso ni xalifa ak sunu maam sëñ Omar Bousso ak rakkam yi fi teew yëpp ak i doomam ak setam ak taalibe yëpp ñii rek ñoo fi daje ñëpp di njabootam kon maa ngi ko jox nuyoo bi mu séddale ma ko mbooloom yëpp xam naa kàddu yi yu gàtt lay doon ndax waajaruñ ko naruñ ko woon suñu alaaji mii moom a ci gaar ne ma rek faw nga sànni cee kàddu mu gàtt gàtt kon kàddu yi dama koy yëkkati ngir rek nekk gi ma nekk kenn ci membre yi commission culturelle bi nga xam ne moo bokk ci daayira waa Kër Sëñ Bousso bi ak Sëñ Moussa xam ngeen ne daayira bi dafa rëy te dafa yaatu ndax dafa làmboo mboolem seti ñaari kilifa yu mag yooyu ak nuñ mën a setoo ci ñoom ak nuñ mën a sant mboolem ñu setoo ci ñoom daal dañoo bokk ci daayira bi kon yaatu na moo tax ñu xaaj ko nag def ko ay xaaj xaajaan yu bari moom daayira bi xaaj bu ci ñu tudde ko ab comité ab kuréel bu ndaw kuréel yooyu nag xam naa benn ëpp ci solo bii nga xam ne mooy daje tey moo woote woon tey jii muy li ñuy wax comité scientifique et culturel ndax moom mooy bi yor li jëm ci wàllu xam-xam lépp lu jëm ci xam-xam ci kër gi li yëpp lu jënti ak i xalaat ak i tëralin ñu jëm ci jàng ak jàngale ci kër gi ñoom ñoo koy saytu ñoo koy waxtaan ñoo koy jiite kon kuréel boobu dama caa nekk membre dama caa bokk wala sax gars yi dañoo ma teg ci kanam ngir xam naa seen bu baax rek waaye wax dëgg matewuma ko ci kenn anam kon moo tax ma yëkkati kàddu yi ñun nag lañ santoon ñu seet lan lañ war a def ci waajtaayu màggal gi ak lañu waral lañ lañ war def ci màggal gi ci boppam ci xeeti waxtaan yu jëm ci yeete yu jëm ci eh, fàttali nit ñi seen diine yu jëm ci wàllu Euh, delloo ndaw ñi ci seen cosaan ak seenu ànd biñ toogee waxtaan ay jotaay yu bari ñu dëppoo ci ne war nañoo jël thème bii nga xam ne moom la sëñ Abo bu sa doon waxtaane nii ak sëñ Abdou Lahad si ak sëñ euh, Lamp Fall nañ ko jël waxtaane ko ren ndax nekk na thème boo xam ne bi ni ko mbokk yi waxee rek waxtu yëpp ak jamono yëpp la am solo waaye jamono ji ñu toll da cee da cee raw ndax dañoo toll ci jamono joo xam ne dafa mel ni nit ñi dañoo fàtte lu ñu doon ak lu tax ñu indi leen fii ci kaw suuf daa mel dañ ko fàtte responsabilité boobu nga xam ne te mooy amaana bi yàlla suñu borom di wax ci alxuraan inna aradna lamanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha amaana boobu nga xam ne yàlla daf ko proposé woon malaaka yeeg asamaan ak suuf ak doj yeeg ñëpp ngir bëgg ñu yenal ko ko ñenn ñu si ni ñoom daw daw res daw ragal ko ñemewuñ ko ngir xam ñu xam ne dafa diis lool te jafe te ñemewuñoo diggee yàlla ba noppi dem ba ci digg ba euh, ñu di ca ñàkk matal dara tax ñoom yëpp ñu daw ko waaye waaye doomu aadama ci boppam ci ak réew fitam ci Eh, ñemem mu nekk yàlla man dey nangu na ma gàddu responsabilité boobu al amaana boobu te mooy diine ji rek ci ci ci yaatal tax yàlla teg koo ko moom doomu aadama moo tax doomu aadama wuuteeg lépp lu yàlla bind moo tax doomu aadama gën a kawe képp ku yàlla bind bépp mi def bu mu bind waaye nag responsabilité boobu kóolite googu amaana boobu nga xam ne yàlla daf ñu ko dénk noonu doomu aadama dañuy dema dema dem ba mel ni dañ koo fàtte wala dañ koy négliger wala dañ koy jéem a euh, woyofal kon nag di ko fàttali leen te léeg-léeg da ciy baax moo tax ñu tàmm tànn thème bi euh, jox ko sunu rakk yu baax yi ñu doon ko traité ñu leen sant bu baax baax nag ñoom ñu doon waxtaan wax dëgg yàlla waxtaan wi leer na niñ ko doon séentoo amee nañ ko noonu nu ko nu nu ko gën kon daal ñuy woo ñëpp nag wala di fàttali ñëpp rek bis ba mooy alxames bi di ñëw ca Mbàkke Bawol fañ ko daan defee muy màggalu sëñ bu soobee ak sëñ Saa Buso alxames le 22 muy alxames bi di ñëw incha allah dañ fa defaat lu mel nii waxtaan wu am solo boo xam ne eh, bu gënee jege dañu leen fàttali temb ak ka koy def waaye ñoo ngi sant nag sunu. kilifa gi ñu fekk si woon tey di sëñ Amdi Moustapha Bousso ak njabootam gépp ci ni ñu teeroo ak ni ñu teeralee ak ni ñu saware ci mbir mi ak woyof geeg mbaax geeg yaatu geeg lépp nga xam ne war nañu ko rek ñoo leen ci sant bu baax a baax wax dëgg yàlla lii moom yombut fu ne dem nañ fa waaye lii moom fi moom ñu fi gis moom ci ci faale ak fonkeel yombut kon nag loolu yal na ngeen ko yàgg man yàgg koo def rek waaw yàgg fi wér loolu daal lañ leen di ñaanal euh, àggale liggéey bi dañu bokk ànd ko yéen di mbokk di sant suñu mbokk yi ñu bokkal liggéey bi yëpp tàmbalee ko ci sëñ alaaji bu su ñangam yi nga xam ne moom yaakaar naa ne famille bi yëpp mën nañoo seede pëstéefam mbaaxam lewetam woyefam cawarteem ak qualité yu baax yëpp rek macha allah tànneef la daal man daal royukaay laa ko jàppee muy suñ njiit nag ci wàllu daayira bi at yi ay at yi at bañ ko tàmbalee ba ba léegi ndax mënuñoo am nag keneen ku mel ni moom nu ma yàlla baal nag ku mel ni moom kuñ ko mën a remplacer amuñ ko moo tax ñu bàyyi ko fekk yàlla fi yàgg nag te yàgg ko ko jiite rek ñu yàgg ci ginnaaw euh, bisu màggal gi nga xam ne moom la ñu war a def ca Mbàkke Bawol ku nga xam ne daañu fa def benn conférence conférence boobu thème bi moo war a nekk maanaam génération bi fi nekk nii ndaw ñi fi nekk nii jamono yi euh, lan lañ wuute ak mag ñaa nga xam ne ñoom lañu fi wuutu loolu lañ bëgg a gëstu seet ko seetantal ko ba xam ndax ñoo ngi jaar ci cosaan la di ca dox ba léegi am ñoo ngi koy wàcc bu fekkee ñu ngi koy wacc nan lañ war a def ba delluwaat ca delluwaat ci cosaan la ak ndono la maanaam daal génération bii fi nekk buñ ko comparé ak mag ñi nga xam ne ñoom lañ fi wutu lan moo leen wutale ndax ñi ngi topp ci seeni tànk di dundal ndono la walla déet loolu la waxtaankat yu war a leeral bu ko defee ndaw ñëpp dañu xam fi ñu toll buñ dégloo fi nga xam ne fa la mag ña tolloon ba xam ndax dañoo war a gën fet li seen laxsaay gën a gaawtu ngir dab mag ña wala ñu jege leen wala bokk ñu war a def. mbokku jullit yi mbokku taalib yi di nuyu ba njaaru di nuyoo te jiite di yàlla mu yàgg bi mu bokk yàgg moom andi liggéey yàlla ak yonent liggéey bu ñu rafetlu ñun ñëpp ànd ak wér ak tal ma ngi leen di sant bu baax eh, ginnaaw bi tuddee fi nekk sëñ Tuubaa muy Cheikh Mountakha maa ngi nuyu itam sunu xalifa sëriñ Mbusoobe Mbusoobe xalifa sëriñ Mbusoobe ak mboolem di wootu Mbusoobe bi ak mboolem di wootu sëriñ Mbusoobe ku aju ci sëriñ Mbusoobe mu ngi nuyu itam sëriñ Baara Mbusoobe fi nekkoon suñu saabu su am mboolem ko ci suñu saabu ñoom ñaar ñooñu seen gis gën a gis la moo koy ñoo ñaan ci seen tari bis bi bis bu rëy la moo tax fonk la moo tax fokk ñëpp la ñëpp ndax mun ne maa suwal ñu ne maa suwal day wax ne sëñ bi soobee euh, bisam kon mooy bisu sëñ Tuubaa Cheikh Mouhamed Mbaye kon nag noonu yaa ngi seen daraja ñu roy ci ñoom te di ñaan yàlla ñu yëngu ci yëngu boo xam ne bu ñu rafetlu ñoom ñëpp àll bi léegi nag bokk na ci. ñu farluwaat ci jaamu yàlla eh, farluwaat ci nekk ay jullit nekk ay taalibe nekk ci taalibe Cheikh Mouhamed waaw bu ma tuddee nag Cheikh Mouhamed Khadim itam danaa tudd magam mag magi ma Mamour Diarra danaa tudd itam mm, sëñ Mor Abdou Salim ñooñu ñooy kàndam lépp ñu fas yéene nag bokk ak àndandoo eh, toppante ñu yoon bi tëddee loolu nag eh, ku ne am nga tey ku la mën yoon ku la mën a soññi ku la mën a soññi bu dee lislaam bu dee ak taalibe bu dee ak toppante am na tey koo xam ne bu man mën de moom nekkoon naka jëkk sama royukaay muy sëriñ Tuubaa Seex Moodu Muntaxa ku ci moom bi kër goo nekk eh, danga fa dox doxin woo xam ne wu ñu rafetlu la ba tax na moom lii da lii lii am dafa toppee ba mu agsi moom seetu woon nag waaye liggéey na ba liggéey agsi ci moom waxtu woon damay wax ni mu ko ñaanal rek moom wér-gi-yaram a gudd fan waaye li jëf nag moo ko fàggalul boppam kër nag bu ci toppante jógee dara nekk bu nag moom ñun ñëpp daal nañ ci farluwaat bu baax euh, ak xeetam farluwaat ci suñu lislaam bu baax euh, kenn koy la mu yéene mu boppam bu defee yàlla mi am ndimbal ndimbal ñu bu baax ñooy ñaan nag sëñ mu taxaw yàgg fi lool di ko ñaanal suñu suñu xajoo day musee bisu ñu bokk ànd ak moom yàgg bi lool ñaan boobu nag ñoo ko ñaan ci dara yi eh, ñu bàyyi ko ci ñu mën a tuddee ñëpp ñu a tuddee ñu bàyyi ko ci ñoom soxna du xale ñu bàyyi ko ci ñoom ay doom yëpp ñoo ko ñaan seen dara ñu ñu bàyyi ko ci saabu noonu eh. fonk li ñuy wax te bañ koo jàppee liggéey ba rek wax ji dem na. kenn bu am seen gis nag monsieur bii dama yëg gis moom pour suñu loolu ndax suñu gisoo lu dëkk dama dal ak mooy yàlla def itam ku baax gi génn génn génn ci ñoom monsieur monsieur suñu loolu. Eh, mu mu mu nangu ceeb bi ko yàlla def lool ba jox ko léppam suñ tubaab yi dem nag. dool dool lam lam loo lu mu defoon ci ak njabootam rek suñ na loolu bi moo xam ne suñ bi loolu dafa rax suñ am sëriñ mu tàmbali duy ko waaye man mu fekk li fekk na mu fekk la mu suñ tubaab moo ñaan yàlla bokk yàgg lool eh, nañ pomp bi daal te bañ ko wax wax rek bis bi ñëwee ñëw rek mu dem waaw kenn ku ne am na ko daal ndax suñu gis moom mooy gis suñu loolu bi ak suñu saako suuf bi ñoo ngi gërëm baax suñu baax waaye daal bi maa ngi sant nag sëñ nga xam ne moo lay jiite ci wàllu la te di nag ci ndam li nga xam ne am na ko waa Moussa bi wax ma ne doomam di jigéen moom la ñu wax de moo ko kooku loolu ndam la ci musóor bi waaye ndam la ci lislaam ndam la ci mu jël loolu bu fekkul woon bu fekkul woon xam-xam ak farlu loolu du ko am kon donc ñu ngi koy ci ndokkeel baax a baax ñooy sant itam alaaji Buso mi nga xam ne suñu doom la suñu jalbaat la lii day day am ba fii wax bu nekk taxawaay ba nekk di sëñ Fallu wax ne am ko ci wutu ngir mu ko xam ne ci xam naa du yomb ci kon noonu la ñaan ñu ko yàgg moom la ñu boole koo xam ne barka dana jàppale da ko ñaan mu yàgg lool mu ko yàgg moom ba li mu bëgg a liggéey moom la ci maam yooyu seen loolu seen sàpp ji ñu ko xam ne ñu ngi sant suñu jarbaat bi nga xam ne suñu doom la suñu jarbaat la ñu si ñoom daal moom moom itam daal nag si bari dafa teew waaye bis bi nag yëgul moom benn bis te kër fànn yëpp te waxtaan bi waxtaan bi xew-xew yu am ñu ko teew te te mën ngaa am ay soxla waaye am na soxla yoo xam ne ko day du yemoon ñàkk bi moom loolu nag mooy ñu fi jëm ko ñu gërëm baax di sant maa ngi sant ñëpp lii sax dama ko mën li wax sama kàddu wax na ko sëñ sëñ Fall moo mooy noonu kon alay alay ñaan ak sëñ Fall bu suuf suñu suñu suñu xarit conférence yi daf ñu wax yi dara man ko ci parce que li li jotaay bi ma teewee moo tax ma wax ko ne daanaka mën naa koy wax yaa ngi koy téye téye téye ñaataal yu bis bi te bis bi nga jox waaw maa ngi gërëm itam nag samay wëllare ñi nga xam ne lu ma nekk lu ngay nekk ak moom monsieur Youssou Diop responsable ci dëkk bi di ko fi teewal suñu Mamadou Lamine Diouf euh, maa ngi ñoom yàlla mooy ma ko la ñoom ndax dañoo bokk bokk tool suñu tubaab yi ànd ci lu lu ñu nekk ko lépp loo xam nekk naa nekk nañ ma may lu nekk nekk naa ñoom. tax na ci suñu ànd bu bari suñu tey. ñun ñu leen bokkee lool ñoom ñoom daal matériel ci waxam xarit lañu loolu nag xarit moom boole am na asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu amiin amiin